laa ilaa ilaa laa laa ilaa ilaa laa gi ci alxames bi yemoog ñaar fukki fan ci weeru avril 2023 ku wax weeru koor sa xel dem ci Nimzaat moo waral tey ñun waa Al Moukhtar TV wàccoon tey sur le terrain pour toppal leen li fi xew yëpp dem nañ fële ca saale xiina foo sànni mbaat mu toj parce que fu ne la nit bàyyeekoo ngir siyaar si kan muy góor gu màgg gi di kan Cheikhna Cheikh Sadou Abi يا بآثارنا وليس لها سقنا بيل ولا بل جمع جقصاد وبي غامل باق كان خامولا غنيو جمام ونلا غسق جمام يرى من جرى محوز غنيو بنان مولم سيماس نبالي شيطاني تيت دو غير خربو لير خدربي مدق لذكر ربنا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله يلا بنتصو لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر mbokk almoxtaar tv tey li ñu leen indiloon fii ci Salikhina mais dinañ leen toppal lépp lu fi rusé bu soobee sunu borom fii ci seen chaîne almoxtaar tv